société nationale d'électricité bu Sénégal Bokk Yaakaar de sori na bennoo réew mi quotidien moo ni gisee xëyati joxoñ candidature yay wéy di sakkan lool ci biir coalition boobale joxoñ it mer gi yenn alliés yi nekkee bokk na ci waa parti socialiste ak AFP réew mi quotidien na doonte ña ngay jéem a wone jàmm ak bennoo gu nu nekkee waaye sore nanu ko lool la ko sabab réew mi ne bokk ci foqale gi waa APR wone réew mi jàpp ca ne doonte ki gën fës ci opposition bi di Ousmane Sonko seppi nañu ko ci liste électorale yi kon narta bokk ci élection yi waaye teewut waa nguur gi moom ba tey ñoo ngi ci guddi gu bët gu tax sama naataango El Hadji Mansour Ndiaye naan Macky Sall warta yem rek ci dem gisee kilifa diine yaak ñeneen ñu mu jàpp ne bu nu ci jàppee yëf ya dox waaye bu ma nee def leneen it sama naataango nee na waxtu wi dalee na njatt te booba jamono Benno Bokk Yaakaar moom ma ngay xuus ci yoonu tasaaroo gi mu jël tasaaroo googa sax moom la kilifa yu bari ci Benno Bokk Yaakaar doon ragal waral direct news Ba mu dalal seenu xel nee leen bis bu ma faloo li ñu tàmbalee woon moom la ñu yeggalee te mooy gagner ensemble gouverner ensemble maanaam ànd am ndam ànd doxal yoor yoor bi feelu ko mel ni ku naan Amadou Ba de candidature am ci boppam sax daa doxut ba muy jéem a doxal leneen yéenekaay bi nii la xëyee sulli ay mbóot yum jàpp ne mën naa gallankoor candidature bu Amadou Ba moomale bokk na ci li yéenekaay bi joxoñ alal ju baree bari jëñ ne moom Amadou Ba am na ko fàttali itam la Ousmane Sonko doon wax 2014 ak ak ba magistrat secretaire général cour des comptes doon dal ci kaw Amadou Ba booba jamono mu nekkoon jëwriñ ñu dénk wàllu koom ak gafak réew mi ñu delsi ci réew mi quotidien miy dikkaat ci juróom-ñaareelu salon international des mines gam ne wone nañu fa tolluwaayuk secteur miin ci Sénégal ne junni ak téeméer ak ñeen fukki milliards ak ñaar ci 2020 le Sénégal jóge jëm ci junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñetti milliards ci 2021 kon yokkute gu ñu xayma ci ñaar fukk ak ñeent ci téeméer boo jël am na réew mi it ne Sénégal am na ñaar téeméer ak juróom benn milliards milliards ci 2020 muy lu tukkee ci wàllu miin yooyele xayma it lii quotidien yeggee nañu ko yemook l'info di ñu yeggee kàdduy Amadou Ba yam yëkkati démb ca boobaleb salon des mines premier ministre ba ne kenn dootu fi nangu golo di bay baabun di dundee ndax réew mi nee na entreprise minière dañuy ñëw roñ alal ji booba jamono askan gi gën di dugg ci torox tànge waral ci le témoin amadu Ba di dal ci kaw société minière yooya ne leen li ngeen war a fay dee leen ko fay ndax mënu leen ñëw di alal di yóbbu sunub askan gën di soobu cib ndool le ñaari yoon ñeel bénéfice yi bawoo ci miin gi moom la bëgg la tribune naan liy dëgg kay mooy Amadou Ba kàddoom yi daa firndeel ya Bougane yëkkati woon ci liy meññe ci réew meek ni ci nguur gi di tegee loxoom ba nuppi luubal gi ne lu dal Kédougou moo ko ko teg ak ndóol gu metti ga askan woowa yeewoo njiital gam sa bopp nee na dara waralu ko lu dul yorin gu bon gu ñeel liy ci réew mi réew mi mu bëgg a jiite nag moom Amadou Ba waxagu fi lu yay kenn critique moo ni gisee ndax yéene kaay bi ne juróom ñaari dige yi Amadou Ba def ci kanam waa Benno bokk yaakaar jagleel ko itam askan wi dara doyu ca sénégalais yenu ca laaj seen xalaat Macky Sall moom daa weesuy xalaat ma nga ca gisaane source aane loola la doon def keroog ca ndaje bennoo bokk yaakaar ba jëm ci numéro 117 bi seen candidat bi amee ci wàllu parrainage Macky Sall la nga naan mooy un plus 1 plus 7 te loola 9 la lay jox di juróom-ñeent baax baax ak mbóot yi ci 9 nag Macky Sall ne jarut sax ma di ci dellu si Marème Faye Sall moom delloon na buum ca boy boy ga yéene kaay bi ne démb ca wetu candidature borom këram la taxaw mel ni na da caa fas yéenee dem ba jeex na mu ca daan demee Ousmane Sonko it mel ni ku ne ci yoonu dem ba jeex ci recours yi les échos nañu foo xalaat rek déposé nañ fa recours démb yéen kaay agent judiciaire de l'état ña ngay jéem a it dabu ñoom waa Pastef tas gi nu tas seen parti recours ba koy mandargalit dugal nañu ko démb premier président bu cour suprême moom lu mu yéex-yéex ëllëg la ñuy xaar dogalam buñ sukkandikoo ci les échos booba jamono la ñu la regard di yëgal ni désonkorisation baa ngay wéy ca ville de Dakar ndax Barthélémy seppi na imaam Khalifa Ndiaye ca ville bu Dakar dàq la ko def Thierno Bocoum moom moo seppi boppam ci élection présidentielle bi nu dëkmal le regard ne fas yéene wut a bokk l'info ni kaay ma wax leen di tax bokkut moom Thierno Bocoum borom agir ñàkk koppar moo tax xalaatu la samp ndëndam ci élection présidentielle bi ñu jëm bari na nag ñu samp seenu ndënd di wax wax yu neex waaye wal Walf Quotidien nee na la nuy wax day dugg ci wii nopp génnee ca wa ca des la waral mënuñoo yay kenn moom la yéene bi jéem a xëy di càmbar booba jamono l'observateur di càmbar ndëgg sërëx am ci parrainage bi yëgal nu it ne ba démb gaa yaa ngay wéy di jël fiche ñu xayma ñu jël fiche ci ñaar téeméer ak juróom benn ñu mën a xaymaa it noona candidature yi candidature am ay jafe-jafeem ay bëgg-bëggam ak liñ naan doomu pàpp la ci la Anta Babacar ngoom di yey yàbbi ci biir yéenekaay bi di l'Observateur Antony xam naa luy ñàkk dëgg ñi jàpp ne nag dama judd rek fekk fi am am nax na nañu seen bopp ndax joxuñu ma dara lu ma am dama koo ñakk ñàkk nag mën a téye ni askan wi dundee ak jafe-jafe moo waral ma jóg soobu ci làng naataango politique bi ay kàddu yi Anta Babacar Ngom ba tey ci l'observateur bés bi la jour xëy yeggee ñu ay kàddu yi Yacine Cissé yu daw yaram muy nettali canceru ween gi mu amee na mu ko dalee ak na mu koy dundee di ñaawlu nag góor ñi wàcc seeni soxna ndax danoo amee cancer cancer googa ngir jàpp ci paj mi bés bi ne ministère de la santé xamle na ni weeru octobre bi yépp di octobre rose mammographie di saytug ween gi ñett junni kott lañu ciy fay mayoro ma fayoon ca it Sud Quotidien ne ëllëg la ñuy dellu ci lekkool yi waaye dellu googaa jaaxal yéenekaay bi la ko waral mooy école yu baree bari daa fees ba tey ak ndoxu taw ñàkkub jàngalekat ak dànkaafub syndicat yi dooleeku ci waral yéenekaay bi naan ubbi tey jàng tey moom ci ay wax la nar a yem yemook libération dañu yóbbu ca tëngee xeex bu mitti yéenekaay bi ne moo fa amoo diggante ay nappkat ak ñu bëggoon a dem bitim réew jaar ci gaal yi gannaaw woowale xeex nag yéenekaay bi ne neewub Matar Sabali gis nañu ko ci ndox mi amit ñeneen ñu ñu gisul la indi fitna gan ak yéenekaay ci sàcc moteuru gaal la sokkee ko Juan Branco mel ne kuy soqi ay bal jëme ci nguur gi ci biir yéenekaay bi di libération ne Pastef ak Ousmane Sonko bu nu bokkut xel xalaatul élection di am ci senegal lum yekkut Macky Sall ak nguuram moom Juan Branco da koo fàtte sunu làmb booba jamono di fàttali kàddu yi Falaye Balde yëkkati woon la tàmmoo génn àdduna ni woon Ama Balde du ma sa bëreeg Lac de Guiers 2 Ama mooma nag Balla Gaye 2 nee na bu sañoon bu janook Modou